yaay. maa ngi ci bàcc ci bàcc bi. nga xamal leen de. léegi koor gi métti gi métti. man daal maa toog ci jàkka ja. Ah. mel ni man ñaari imaam laay gis bi ñu xutba naan nii. man a xaaral ma daw ñibbi. ñaari ma fu ñu koy waxee. yow daal boo wooree di waxtu rek nii nañ lay bàyyi. Ah? xam naa ragal nga koor de yow. tey moom normalement. ah yàlla ñaari fan la war a fay ñaar. ah tey daa métti ci man kër. ah métti na lool métti na lool. waaw kay. Euh, ana Garbi Ndiaye. Garbi Ndiaye dañu ci biir. ba xam nga ne tey imam waa jàkk ji ñoom lañ ame parce que gis nga melokaan wi ñu jël léegi nii melo wi ñu jël dara baaxu ci yow ana yeeta xëdd ak ak i bongo ah? ba jamono baax kay lépp amu ci woon gis nga melokaan wi ñu jël léegi nii man damaa xamul garmi sax moom kañ la fi ñëw ak kañ la miinteeg euh, xale dëkk bi. ba commencé ànd ak ñoom yee eh, yaay di yéete xëdd ci ay bongo. bongo kay leen da caa doy. ama sa xew ñu woo la doy na sa tuur wala sa leen bàyyi da xam. ngeen koo bàyyi da ngeen a war a woo ko yedd ko wax ak moom parce daa sikk. ñii de ñii de buñ leen bàyyi xam buñ jëm bu yaajee xool orchestre. orchestre la ñuy woo teg di yéete xët waaye lii man xuma kan xuma kan waaye man gan di ci bopp naan ba jamono daan baax day ba jamono daan baax day yëpp amu ci woon ah waaye looy bàcc nii ah? daal ay torsion su mu ne nga nga nga nga nga taal torsion. ah yow mi yow mi yow mi baa jàmm. defuma dara ci yor yoru koor la ñu nekk. waaw xar yi xar yi naan nañ. xar yi naan nañ xam nga ni boobu nekk ko dama leen toppatoo. ah ay yooyu nag bisimilah jàmm. yaa ngi toogal daal toogal. non defal ndànk rek defal ndànk. yéen a ngi affaire yi dama laa ragal. damay toog Dakar nag yow. ala nga ala nga waxal waxu góor. waaw yow. ñëpp yow laay wóor door rek la yow ay bisimilah xam nga moom yow est-ce que moo sa bopp de yow mel ni bul nii eh, yow laay wóor bàyyi <laughs> neexul ba neexul nag da ga aay de bànni nga de. <laughs> parce que dugg nga ci gaale bi ba génnaat man si bu ma man bërki démb laaj soo ko sim ni jàpp nga yaay booy dañ la ko may kon ci suuf xam nga ma wëndëng laa xaw ma nu mu demee yow ndekete yow su dóor yi yëpp ak say oh. jëw nga ma nag. waa kii nga yow doo góor yàlla. yow ay yow doo góor yàlla. lan la waxal doo góor yàlla. <laughs> yooyu sax xamoon ni yow dama lay lekk sa bakkan mi ngi sama loxo. dëggu li ma la xool da nga di ma. yow yow ma dërëm yow pour muy lekk benn. yow dañ ma dénk nga jël ko. li may xamal xamal lu mu doon. Ah. yow moom. da ngaa tekkiwul seen kër. moo tax ba moo tax ba ñu may xale bi. yëgoo tiñu ma. parce que wëndëng nga wax nga ko wëndëng nga tekkiwoo dara wax nga nit nit nag boo nit nag boo tekkiwul dara nit nag boo tekkiwul dara kenn dina boole si dara dara dara dara <laughs> yow seen bàyyi raado mais ngaan ma kii mini foko cher nii xaw ma loo takk ci kër gi nii yow kii fii ngay indi yaay bu dee bu nagay ñëw fii de damay ñëwaale. yàlla. yow nag yow nag ñàkk jom gi ñuy wax. Eh, ñàkk jom gi ñuy wax. mu ngi ci yow kii yow sa yow sa pitbull bi gis nga ko. kii naa ko bàyyi ak sama rakk mu koy rey kee yow gis nga kee enfant chéri yow xaw ma fu jugee yow xam nga sa d'origine du fii. yow xaw ma foo jóge mais ay téere yu baax nga ñëwaale nga ñëw dama dóor xale bi yow xale bi du du taar du caay-caay du gàtt bu tax mu war la bare yow am na loo àndal de yow am nga melokaan am na lu nekk yow moo tax nga gëlëmal ma temps yëpp ma jël sama yoon ba nga takk xale bi may soog a ñëw lii metti na ma boo ma moytuwul nag naa la lekk de ak ci sëriñ Fallou Fall xam nga yow doo doo bëgg nga déglu ma doo bandi moo tax fi li nga waxoon doo ngay nekk di waxaat nii gis nga bandi dëgg du bëri wax. bandi du bëri wax. dégg naa sànq say biir wax nga ne fii laa indi yaay booy bi waaw Faramareen fii laa ko indi mu dëkk ak man. yow na sax ñàkk job moo tax nga bëgg a ñëw wéeru ci man waaye du ko nangu de. du ko nangu yow at day baax fan la topp góor ame topp góor fan la amee rek laa xamul. sama la Sara Sukul yow yow yow gis nga yow na yow xam li di laam-laame ci koñ bi fi yëpp maa koy bëgg maa koy bëgg ma parce que yow nag vraiment ma daal sa problème lan sa problème yow yaay son problème actuellement la waaw léegi nag xam laa ko nga xam la neex nga bi waaw da may déglu te expliqué nga gis nga wagga wagga ak wagga mënu ñoo bokk mbalka ñaari ko ñu bokk mbalka yow comme la sa dof bii nii moi sama kër la fii sama kër la am dëggam déet da ngay def li ma bëgg nga toog wax way laa mënoo ko nga gorom léegi kon bàyyi nga ñëw fee ne bàyyi ñëw fan man bu ma ñëwul fee bàyyi nga fa dugg fee sama alal moo fa nekk sa alal da nga koy jël mu yëgee laa fay ñëw eh, wéroo xam moom na ko bàyyi xam nga foofu sama pilis la yow xam nga demee nu fa nga yàgg ko mu xam nga lan laa lay xamal de chez damay génn ndànk. ay nijaay boo jëlee bii ah. waaye ki nit la. yow mi yaa nit. da doon yooru yëpp nga client boo xam te foo ne ko fii la mu ne la du fii dangaa sikk yow kii bu melee nii yow rakam nan la war a mel. waaye rakam rakam vraiment. yow eh dimbali ma yow waxuma na nga la. non rakam daa civilisé vraiment dem civilisé la man booy su ma booy est-ce que est moom euh, ci farmaane la bokk sa moom kii est-ce yow la ñuy war a ndax yow ça va. xam nga Youssou Ndour waaye nag ci xoolal li nga guddal li ma bëgg nga déglu ma. ma bëgg nga déglu ma wax la ñaar tuut te bariwul wax ji li ko guddal li ko gàttal mooy gis ne kooku kii du ñëw ci biir kër gi lu leer naa ñu laa lay wax rakkam moom xayrun comme que nee na moom day wujje bu ñëwee fekk fi jeg waaye kii du dugg si biir kër gi man dèjà kii rek ñemewu ma ko xanaa koo ñeme nag ngay bokk kër waaye koo ñemewul doo bokk ak moom kër samay rab ñemewul. man ragalu ma ko. li may bañ mooy ma ma xëy. ma xëy mu wom mi sama xar yëpp laa loolu laa ragal. ah kon ah, ah, ah, loolu man loo man loolu laa ci ragal. léegi nag mbir mi waaw dafa ndànk dafa ndànk rek. loolu neex naa réglé sama sakaram fii léegi nee naa ko yow fii moom du fi ñëw man naka jekk même même su ma demee ci Faramareen sax la ma koy wax mooy kii di fi ñëw moom du fi ñëw. xam nga ni kon fa nga dugg baaxul. Ah, kon baax na te danga doon làmp daj nga client boo xamante ni foo na ko fii la rek mën na la du fii. ay yow yow dim yow yow yow kan nga mën a boole wu yow kan nga mën a boole wu yow xam yow mbirum banditisme ah, kii nga xam ne banditisme la kii boo xoolee xam ne sulaar la gis nga kii boo duggee ci moom ay band la lay booleel ñu jam la paaka ngay sëkk. yow dama nag yow. yow bàyyi wax jàpp yow fii la fii la laaj fii la fii taxaw léegi moo la. ah jox ma paaka mburu mi nga bañ. boo jotee ci jàmm santal yàlla. yow nijaay yow man yow xaw ma ndax yow dangaa def xaw ma lu la dal su bokkul ma la lii rek. lu jóge ci lii dal ci lii. xam naa moom laa seeti. Abdou moom am na solution. su bokkul ma la fii rek. fii maa ko bañ. su bokkul ma